marhaban ndamu gaynde yu Sénégal yi la mboolem yéen kaay xëyandoo ni kii tey Sud Quotidien ne ak bile ndam mi Sénégal am ci kanamu Congo ñaari bal ci dara tax na ba ñu daal di door bu baax a baax yi la éliminatoire waaye du tey Sénégal moo ne jamono jile si ñaareelu place ba feeto ci ginnaaw Guinée Bissau mi jiitu ci boobule groupe ginnaaw ñoom itam bu ñu amee ndam lu yaa ci kanam Eswatini ya ñetti bal ci dara Eswatini moomee sax moo fas yéene doon kon adversaire mi Sénégal di lool ci dibéer mi ñuy dëgmal fale ci Tanzania ba tey bu ñu sukkandikoo Sénégal ya daal dinañu dalal xel ya ci ndorteelu yile éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations mi ñu fas amal ci atum 2021 ah kay ndaxte ni ah, kay jongante bi fu muy doore ba fu muy jeexee daanaka gaynde ñoo doon dirise ya foofu la ci benn dëkk ñaari gaar ñaari doomu Thiès di Sidi ñu dugal ñaari bitu Sénégal yi ya yéeni kay Vox Populi ya mu ngey dëggal bi le xibaar ne ni ki démb foofu ci stade Lat Dior bu Thiès Sidi di dugal la bitu Sénégal ya ci seen l'observateur ne yaa histoire ba daal dina doore nu mu gën a neexee foofu la ci Thiès ak yile doomam yu mel ni Sidi Sarr ak kii di Habib Diallo ndaxte ñoom ñaar ñi la yaa nekk doomu benn dëkk ñaari gaar ñoo mujj te gaynde yu Sénégal yaa ci raayu ndam lu sori loolu am ndam jamono jile mooy dialogue national bi yaa moom la yéene ka critique daal di xëy yaa suñu naatango yéene yaa bii la dialogue mi ngi tërë bu Sénégal amee bi yéene doxal fii ci na ci yaa ahankay mbir mi demu dikkuta lépp a tagatambe li ko waral nag ba léegi yaa bu Guy Massagna moomu le moo lànk ba tëdd si naaj bi yaa ne tànk installé wuñu ko du ci jëm tus moom Famara Ibrahima Sagna jamono jili yaa moo tere yëf ya avancé ya suñu naatango yi sax jàpp ne ya dafa hypothéqué jamono jili am ci boobu la dialogue national ci jooju jamono moom yéene kaayu enquête mu ngi xam le ne ya commission mi ñu dënk wàllum politique ci boobu la dialogue national bu ñu leen sampé ya fan ak benn ci weeru mai mi waaye teg tekaral gi Famara Ibrahima Sagna nekkee ya déggoo mi a am ci nu ñu fas yéene càmbare ya bi le ay yéex-yéex yu ñu nemmeeku itam ci liggéey ya ay mandataires yu dëkkee absenté ya xam le ne yaa bii la dialogue national mu ngi teg baaraamam ci ay góom yu ko indil gàllankoor njiiti réew bu Sénégal Macky Sall bu ñu moo koy xam le yaa suñu naatango yi ne yaa moom njiiti mi di itam njiital alliance pour la république doxalinam ci diggante mag yi responsable yi koy jàppal tànk di ay aliyem am nañu ci tàmbali amee bi jeexi ah ya ndax nag moom njiiti mi yaa ñu ngi koy jiiñ ne yaa dafa a doole ñenn ci ay kàngam yu fare ci biir partiyam di ko jàppal tànk te lu ni mel bu ñu moytuuta gàllankoor mi mu fas yéene jur mooy ci élection locale lu ñu dëgmal yi les responsable am dinañu mujjee amee ba jafe-jafe ci kanam seen ay alliés ñu fas yéene jàmmaarloog ñoom bokk na ci yooyu les alliés waa parti socialiste yéene kaay la tribune ya Serigne Mbaye Thiam mi njiit réew bu Sénégal Macky Sall téye ba léegi ci biir gouvernement bi ya ak tabb bu bees mi ñu daal kii di Aliou Ndoya daal di dumóoyu yenn ci ay responsable loolee bu ñu moytuuta yéene kaay la tribune ma ngi xam ne abu fippu la fas yéene jur ci biir parti socialiste ahankay ndaxte jamono jile yaa am na ñu bëri ñu ci kontaanul ba tax ñuy fësal seen naqar ci mbir bu demee la moom jiite réew bi Sénégal Macky Sall doore ko ci mandaam bu njëkk ak bi la ñaari lupp mandat mi fas yéene ndar képp ci 2024 parti socialiste ñu ngi teg jamono jile seen i gët ci ay hauts responsables ñu mel ni Serigne Mbaye Thiam ak kii di Aminata Mbengue Ndiaye waaye bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay la tribune ñu bëri ñu fare ci biir parti socialiste daanaka ñu koy naqarlu bu baax a baax lu ñuy naqarlu kay mu ngi ne danga ci xëtu yéeni kaay réew mi ya suñu natango ya di addu ci xew-xew yu am fale ci Guinée Conakry ya Amnesty International ne kii di Alpha Condé ya daanaka bu ko sampe ya bopp réew mi ba léegi ya defut lu dul salfaañe ak yelleefu doomi aadama yi fay yeewoo ankay ndax nag war a si juróom-ñaar fukk ci ay doomi aadama daat na ñàkk seen i bakkan ci ay manifestation a ah. jàpp ko 2015 ba léegi ya ah. am ñu bëri itam ñu ñu teg loxo daal di leen tëj ci biir kaso yi ya ah. lu toll si téeméer ak juróom-ñeent daal di si génn àdduna ñii moom génn guñu àdduna waaye moom la ñu njortuwaa yéene kaay libération ne ya du ñeen ñu dul ñu ñu teg loxo ci mbirum drogue fii ci Sénégal su nga tàngoy libération ne ya ki nekk ci ginnaaw boobule dorog ba léegi yaa kenn xamagu ko ndax itam kenn ñemew tudd tuurama moom sax daanaka boos lañ koy woowee di tuur buñ koy dakkantale yaa ahankay ndax ñi nga xamante ne ñoom lañ ci teg loxo waa buñ leen laaje ya mooy kan nee nañu xalaatuñu jaar tuuram ndax nag dafa mel ni ya seen bakken mu ngi coxtu gerte ya bés buñ ko waxee ya ragal ñu daal di leb seen fànn ndar keepe ko ko lum làmb yéene kaay daal di adduwa ci combat mi Luc Nicolaï bëgg a taxawal ci diggante Modou Lo ak kii di Ama Baldé ya suñu naatango yi ne ya gàllankoor am na de ahankay ndaxte moom Luc Nicolaï ginnaaw bu mu diggee Modou Lo ne yaa dina ko utilib combat dafa mel ni jamono jile daf kaa tënk ndaxte moom Modou Lo waa téeméer ak juróom fukki millions yi franc CFA moom la ko tegal ci taabal gi yaa ngir mu jàmbaarloo kii di Ama Baldé waaye daa fekk ni yaa doomu Falaye Baldé bi ya moo lànk ba tërës naaj bi ya juróom fukki millions yi franc CFA lañ ko bëgg a jëbal te loolee arrangé wu ko ba tax suñu natango yi sampub laaj ne waaw ndaxam Ama Baldé bu lànkee jël Modou Lo ci bile combat dina baax ci moom jànge njëf